Euh, li xew Mali c'est à regretter c'est à regretter mais réew moo xam ne sécurité des personnes et des biens ñi fa askan bi teg mënuñ suñ ko yor il faut le dire ba pays étrangers de intervenir tubaab bi benn deuxième chose sa principal opposant qui n'est pas ton ennemi il est kidnappé xamuñu fu mu nekk ngay organiser ay élections législatives man je le dis comme je le pense troisièmement pendant que tout va mal on voit ta famille en train de faire la bambaloa aux îles Baléares bu fekkee c'est une solution il faut y aller je suis très clair dans ce que je dis le peuple malien dañu doon souffrir ce n'est pas que je suis en train de faire la promotion des coups d'État non dama ne le peuple ak li ma la limal man je donne des cas concrets moo tax boobu ñu demee Mali pour régler ce problème vous voyez commencer à tourner même le président Ibeka gis nga nit da ngay topp lu sa peuple bëgg le peuple malien est avec ce qui s'est passé à des degrés divers bien entendu parce que loolu mooy démocrate am ñuy contre am ñuy non non mais dama ne insécurité au Mali les gens mouraient des attentats dans les hôtels Radisson dans la capitale on enlève le principal opposant euh, Panak Vat famille fait la bamboula dans les îles ba je dis pourtant vous êtes nommé euh, élu démocratiquement parce que quand euh, les les militaires euh, du Mali li ñuy def nii lu may ñaan yàlla mooy ñu gaaw rendre le pouvoir le plus rapidement possible y a des gens qui sont capables parce que y a des gens qui sont capables c'est pas comme la Côte d'Ivoire au Mali y des gens qui sont capables waxuñu ne loolu donc trois ans yii ñu bëgg a kii moi je suis contre souvent ce sont les textes qui nous mènent des choses yoo xam ne truc soyons dans des logiques soyons dans l'éthique soyons du côté du peuple j'ai dit si trois exemples yi ma la jox léegi lu ma si gën a mettre c'est que l'opposant est, est, est enlevé on ne sait même pas par qui parce qu'on peut penser que c'est le, côté au des gens qui étaient au pouvoir c'est leur opposant malgré ça au lieu de surseoir on organise la bamboula politique avec des des des, élections législatives nga xam ne moom dañu koy écarté moo tax gars yi ba mu ñu ñëwee d'ailleurs avec l'imam euh, ko c'était des conditions posées annuler ces élections là gis nga lu set boo ko bëggee raxasaat dañ koy tilimal déggoo ma de le débat ne s'est pas posé au Sénégal ne se posera pas incha allah. second deuxième ça de la littérature lu am solo mooy aujourd'hui déggu leen fenn comme en Guinée comme en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays le président Macky Sall nee na je vais briguer un troisième mandat da ko dégg fenn Youssou Ndour nee na jóg dinaan da ngay nettali gént jàmbur bari pexe weesuwul loolu